ذكر bilaaji la wa baka nee na loolu yi ci téere tasawur shubaa la ko sëñ bi bind daa ndax daan ni wa man yaxut daan ni ndax wa man yaxut baxral xaqiqati baxral xaqiqati bila furki shariati bila furki shariati fa xumquhun jala fa xumquhun jala képp ku soobu géejug xaqiqa képp ku soobu géejug xaqiqa te njëkkoo toppatoo sa sariya ba mu wér te njëkkoo toppatoo sa sariya ba mu wér nee na ab dof nee na kooku de ab dof la. ndax ñaar yi dañoo war a ànd. ndax ñaar yi dañoo war a ànd. min ha fi ilmi shariati ma. fi ilmi shariati. ma ilmi lxaqiqati. ma ilmi lxaqiqati. min qabli riyaadaat. min qabli riyaadaat. bala ngaa def riyaada. nee bala ngaa def riyaada. na nga jàng ba ba noppi. loolu sëñ bi dénkaane ko ci bi. kon loolu sëñ bi ci téere bi. nañ bàyyi xel ci ndénkaane Serigne Touba yi. kon nañu bàyyi xel ci ndénkaane Serigne Touba yi. ndax jamono jii ñu toll nii. ndax jamono jii ñu toll nii. ku ne gis na ni mu jaxasoo. ku ne gis na ni mu jaxasoo. lu ne nit ñaa ngi koy woote. leneen nit ñaa ngi koy woote. lu ne nit ñaa ngi koy naxee. lu ne nit ñaa ngi koy naxee. nga gis ñu sànq lool. nga gis ñu sànq lool. ñoo xam ni. ñoo xam ni. nu nekkee. lii nu nekkee. boo ko xooloon ak li Sëriñ Tuubaa digle. boo ko xooloon ak li Sëriñ Tuubaa digle. daa mel ni penkook sow. daa mel ni penkook sow. kon nag lay taw feexi ndaw. kon nag lay taw feexu ndaw. nga delloo sa bopp. mooy nga delloo sa bopp. ci digali sëriñ ci digali sëriñ bi. fonk ko bu baax a baax. fonkaat ko bu baax a baax. te xam ni yoon wi amul ñaari kilifa. te xam ne yoon wi amul ñaari kilifa. benn kilifa la am. benn kilifa la am. muy Sëriñ muy Sëriñ ay waxam. ay waxam. wax ju waroog moom. wax ju waroog moom. dañoo war a wax bàyyi wax joojee. dañoo war a bàyyi wax joojee. jàpp wax te jàpp wax Sëriñ Tuubaa. pas-pas dafa foor lool. ne pas-pas dafa foor lool. buñ ko dénk mbedd mi. buñ ko dénk mbedd mi. buñ ko dénk itam jotaay rek di wax. buñ ko dénk itam jotaay rek di wax. dem gëstu ci téere sëriñ bi. da ngay dem gëstu ci téere sëriñ bi. ba xam lan la digle. ba xam lan la digle. nga cay góorgóorlu loo mën. nga cay góorgóorlu loo mën. yàlla leen sëriñ bi taxaw. yàlla leen sëriñ bi taxaw. ndax ni ñu ko faral di waxee. ndax ni ñu ko faral di waxee. ñaar rek. ñaar rek. moo tax doomu aadama di sonn ci àdduna. moo tax doomu aadama di sonn ci ci àdduna. koo gis muy naf na fi. koo gis muy naf na fi. di kër kër di kër kër kenn ci ñaar yi moo ko tax a jóg. kenn ci ñaar yi moo ko tax a mooy kuy kër kër yi. mooy kuy kër kër ngir àddunaam jag. ngir àddunaam jag. Hmm. wala kuy kër kër yi. wala kuy kër kër yi. ngir àllaaxiraam jag. ngir àllaaxiraam jag. amul ñetteel. nee amul ñetteel. tubaab yeeg. tubaab yeeg. naar yeeg. naar yeeg. ñëpp a ngi ci biir. ñëpp a ngi ci biir. koo fi gis muy yëngu daal. koo fi gis muy yëngu daal. day yëngu ngir àddunaam jag. day yëngu ngir àddunaam jag. wala muy yëngu ngir àllaaxiraam jag. wala muy yëngu ngir àllaaxiraam jag. sëñ Tuubaa nag dafa wax ni. sëñ Tuubaa nag dafa wax ni. waqdi xawaa'ija allaziina daamu. waqdi xawaa'ija allaziina daamu. fi xidmati. fi xidmati. wa hablahum maaraamu. wa hablahum maaraamu. sunu boroom. maa ngi lay ñaan. maa ngi lay ñaan. aajo yi. aajo yi. mboole seen ñi nga xam ni. mboole seen ñi. liggéeyal sax nañ ci di ma liggéeyal. nga faj seeni i aajo. nga faj seen i aajo. kon liggéeyal sëñ Tuubaa. kon liggéeyal sëñ Tuubaa. mooy defar aajo at. mooy defar aajo adduna. bu dee alaaxira itam. bu dee alaaxira itam. الذين سارعوا لخدمتي إن الذين سارعوا لخدمتي فلهم الديار فلهم الديار وسط ñi newoon ci àdduna ñi newoon ci àdduna daan nax na di ma liggéeyal daan nax na di ma liggéeyal bu ëllëgee bu ëllëgee ci digg aljanna ci digg aljanna la leen sunu boroom la leen sunu boroom di tabaxal di tabaxal ay njénne ay njénne maanaa ay pale maanaa ay pale ay dëkkuwaay ay dëkkuwaay diyaaru lahumu diyaaru wasal jannati kon ñaari yi tax nit ñi di sonn yëpp kon ñaari yi tax nit ñi di sonn yëpp sëriñ bi dëxañ na ko ci biir liggéeyal ko sëriñ bi dëxañ na ko ci biir liggéeyal ko képp ku ne xam na ni képp ku ne xam na ni ku ci liggéeyal sëñ Tuubaa ku ciy liggéeyal sëñ Tuubaa te sellal liggéey ba te sellal liggéey ba loolu da ko gis loolu yi da nga ko gis xanaa ko ko booleeg leneen xanaa ko ko booleeg leneen ndax innamal a'maalu binniyaati ndax yéene la ñuy fay. ndax yéene la ñuy fay. keroog saxaaba yi. keroog saxaaba yi. ridwaanullahi alayhim. ridwaanullahi alayhim. bi ñu fogoo bay bëgg a gàddaay. bi ñu fogoo bay bëgg a gàddaay. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu leen. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu leen. man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi. fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi. képp koo xam ne yaa ngi gàddaay. képp koo xam ne yaa ngi gàddaay. te yàlla. te yàlla. moo tax di gàddaay. moo la tax di gàddaay. yonente bi sallallahu alayhi tax di gàddaay. yonente bi sallallahu alayhi la tax di gàddaay. xamal ni yàlla ak yonente bi danañ la gàttal. xamal ni yàlla ak yonente bi danañ la gàttal. wa man kaanat hijratuhu li dunyan yusibuha aw imraatin ma koo xam ne nag addunaa ko tax a jug koo xam ne nag addunaa ko tax a jug di gàddaay di gàddaay aw imraatin yan kixuxa wala ndaw sum topp bëgg koo takk wala ndaw soo xam ne da koo uh, topp bëgg koo takk looloo ko tax di gàddaay looloo di gàddaay waaye nee na kooku itam la ko tax a jug na xam ne moo ko tax a jug nee na waaye kooku na xam ne la ko tax a jug moo ko tax a jug waaye yàlla taxul kon boobu la ixlaas taxaw kon boobu la ixlaas taxaw muy sellal kenn ko ci sellal sa saw doxin sa digganteeg sëriñ bi. kenn ko ci sellal saw doxin sa digganteeg sëriñ bi. te sëñ bi nekk sëñ bi rek nekk sa yitte. te sëñ bi rek nekk sa yitte. kon loolu mu digg da ko gis. kon loolu yi mu digg da ko gis bu wér. te ku leen xool xam ni yéen a ngi ciy naf naf. te ku leen xool xam ni yéen a ngi ciy naf naf. ndax fa xam nañ ko bu baax. ndax fa ngeen jógee xam nañ ko bu baax. ak mbaax tumuraanke na fa. ak mbaax tumuraanke na fa. waaye yéen gi ngi naf naf ci sëriñ. waaye yéen a ngi naf naf ci yàlla na leen sëriñ bi euh, taxawul boppam. kon yàlla na leen sëriñ bi taxawul boppam. amaa sëriñ bi nag. amaa sëriñ bi nag. ah moom wax ci moom. moom day wax ci moom. danañu xaw a jafe sax. danañu xaw a jafe sax. moom mi nga xam ne moo leen tax a jóg tey. moom mi nga leen mi nga xam ne moo leen tax a jóg tey. ñëw di ko siyaar si. ñëw di ko siyaar si. wax ci moom danañu xaw a jafe. wax ci moom danañu xaw a jafe. waaye li ma ci xam. waaye li ma ci xam. moom day. mooy moom day. digganteem ak sëñ Touba. digganteem ak sëñ Touba. fekkul woon. ay waajuram. liggéeyub ay ay waajuram. donte ñoom sëñ Touba lañ doon liggéeyal. waaye doylu woowul woon loolee. waaye doyloowul woon loolee. dafa ñëw. dafa ñëw. laxasaayu. laxasaayu. jaayanteeg Serigne Saliou. jaayanteeg Serigne liggéeyal sëñ Touba. liggéeyal sëñ Touba. jërëjëf jërëjëf wa بجنده في الخلد لم يكن لم يكن من يدار أو من لقلبه مرض وليقود في الخراب ربي ما لم يجهلني هلا

يفيدي على ماني له العليم بما يشاء من قلوب وسبقي بالقلوب منصرفا بسببي ناديته ستري إن الذي لم يدرك sa